Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo là parce que je vais démarrer sur le Mali. Le Mali, en cette date du dimanche 26, le Mali est devenu la première puissance africaine. Le Mali. Moi, pour parler peu sur le Mali, je vous lance un appel, ce que je vous avais dit. Avec la Russie, le Mali est devenu la première puissance africaine. Donc, vous, gouvernement malien, je vous lance un appel solennel. Au mois de juin, il y a le renouvellement de l'aménagement. C'est-à-dire, les militaires que le STEM avait envoyés chez vous pour lutter contre le djihadisme. Et ces même djihadistes qu'il a, que le STEM a créé et a lancé au Mali. pour pouvoir contrôler certaines choses. Raison pour laquelle Mali, première puissance africaine, Mali, premier pays africain à détenir une arme nucléaire. Mali, première puissance africaine à détenir des qui antimissines et tout. Donc là, là, là, <coughs> le Mali a gagné son pari. Et on discute sur, sur beaucoup de choses. L'Africain, comme Macky Sall il a l'habitude de prendre des dettes mais au lieu de prendre des dettes va acheter le matériel que nous permet de fabriquer des usines pourquoi pas ne pas fabriquer des usines dans notre pays créer de l'emploi dans notre pays oblige que au lieu chaque fois prendre des dettes et je vous donne un secret de polichinelle au Sénégal c'est chaud les taxes douanières sont extrêmes parce que c'est très normal les bagages du Mali ne passent plus par le Sénégal. Pourtant, c'était Macky Sall qui avait fermé leurs frontières. Les bagages passent par la Guinée. Au minimum, on peut perdre 6 à 6,5 milliards par mois avec le Mali. Le Sénégal perd 6 à 6,5 milliards de francs CFA avec le Mali. chaque mois actuellement à cause de qui Macky Aujourd'hui, de 8h du matin à presque 18h, il y avait les camions qui venaient. Actuellement, attendez, le Mali est le seul pays africain souverain et libre. Et il va accompagner le Burkina, le Mali va accompagner la Guinée. Déjà, il a collaboré avec la Guinée, c'est fini. Ses produits ne, ne, ne plus par le Sénégal. Pourtant, dès que tu parles du communisme, on te dit non, que le, le communisme, c'est le sang. Moi, c'est ça que je pense, nous tous. Or que le communisme, c'est autre chose. Le Mali a gagné un pari. Il a exclu la France et a rompu toutes sortes d'accords colonialistes. Le Mali est le seul pays qui l'a rompu actuellement. Dieu veut la vérité. Allez vérifier. Donc, vive à Goïta. Vive le peuple malien. Vive le peuple qui a compris l'enjeu du système. Vive le peuple qui a compris comment casser un système. Sénégal, notre seul problème, on se bat pour des hommes, pas pour un système. Or, moi, je me bats pour le système, pas pour les hommes. Je pour le système, pas pour les hommes. gars yi bi xam ngeen ma lu ma si metti Sénégal xeex bi ñetti parti politique ñoo ko sekk parti au pouvoir du système opposition du système le troisième ce que réclamait Pape Djibril Fall c'est un grand menteur parce que lui il est dans l'opposition du système donc c'est la troisième incarnation politique qui vient d'arriver au Sénégal c'est qui Pastef un parti politique hors système anti-système donc il y a trois partis politiques la politique sénégalaise est triangulaire actuellement il y a deux sortes d'opposition au Sénégal Et à travers leur discours même, vous les entendez parler. Vous savez qu'il y a deux sortes d'opposition au Sénégal. L'opposition très radicale qui est son Sonko, opposition Sonko, avec l'autre opposition occidentale. Qu'on le veuille ou non, Sonko, à ses débuts, il avait compris, non Il avait dit qu'il ne va pas traiter avec les du STEM. Parce que le STEM, c'est le STEM. et son projet la et son projet là quiconque qui est dans le système quiconque je je défie quiconque képp ku bokk ci système bi projet Sonko bi munoo ko adopté nay leer ndax fay impôt mënoo bokk ci système bi ñu ne la da ngay fay impôt chaque weer yow sa xool sedd déedéet mënul nekk. munoo bokk ci système bi ñu ne la kaay nga géwulu tagg nit ñi munul nekk munoo bokk ci système bi ñu ne la xaalis dañ koy lijjanti kenn du ko liggéey mënul nekk moo tax des fois fi ngeen di jël combat bi teg ko ci Macky Sall ñii jël combat bi teg ko ci Sonko léegi combat bi da ngeen koy teg ci système ak anti système système ak anti système ndax marché bi loo leen wax vingt neuf trente waa léegi un deux un deux bi nag trente un un deux bi bële passé bi ñu tojee oto Sonko deux jours lañ yëngal bii passé ñu toj otom gaañ ko deux jours lañ yëngalaat bii passé ñu programme waat deux jours tëb trois jours pour bëgg a programmer waat quatrième jour Une révolution ne se prépare pas, une révolution ne se déclare pas. Une révolution, c'est instantané, c'est simultané. Macky mu ngi arrêté nit ñi nii <coughs> waaw wala déet parce que lépp loo leen war a def da ngeen ko koy wax mu xam fi ngeen jëm. parce que des fois da ngay nit ñi xaw a yéeg ñi mais am na ñit nu muy waxee gars yi dañu foog da nga yéeg wala yéegoo déedéet gars yi yéeguñu de ñu ngi seen normal niveau comme fi moo laa doon waxee da ngay signaler gauche pour am droite wala signaler droite pour am gauche combattant noonu lay mel yéen ana militaire yi dañuy dugg seen biir ana gendarme yi dañuy dugg seen biir infiltrer leen dugg seen biir kër yi xam fu ngeen dëkk di leen jàpp waaw wala déet pourtant ñi leen a jàpp saa yi dañuy yéen mais saa xoolal da teg stratégie ñëpp toog si internet bi ñu teg suñuy stratégie waaye yéen tam yéen tam yéen tam bu ñu tegee suñu stratégie si internet bi stratégie bi dox waa ko ñun fay bi ñuy fay suñu gendarme ak suñu policier yi lu muy jëriñ dëgg moo neex yàlla toog si internet bi ñëpp xam ne ñii fii lañ jëm ngeen yegg leen fa non non déedéet stratégie bi tànk yaa ngeen ni xëy yéen ñëpp garaboo dajaloo cité kër góor gi c'est parce que combat bi da ngeen ko dese comprendre combat bi kër par kër la quartier par quartier gox par gox mais le 29 30 bi ñun dafa amoon lu ñu lancé woon le 30 ba pare malgré ko Sonko mu ngi ci certificat médical te ñii bëgg nañu forcer jëli ko man moom certificat médical bu moom dama ciy taxaw. parce que moment en bataille de communication Sonko xoolal def leen dóor dafa kenn du dugg si yenn détails communicants yi mais man tey Sonko tey xam ngeen met Clédor nekk au Sénégal am na ñaari avocats yu bees yi ñëw xam ngeen ay ñitu système lañ te ñu jël Juan Branco pour won leen ne tey Sénégal ragal leen ñu suñu gendarmerie ñëpp laa yemale je vous défie yàlla na Sonko nangu ñëw. Juan Branco moom gis nga bés buñ ko jëloon teg ko ci kanamu oto Sonko <laughs> li amoon du amaat gars yi dofuñu de xam nañ fi ñuy taxaw gis nga maître Clédor moom ñu fekk ci biir oto bi pompé ko. ñun ñu amoon ñeenti ñi ci biir oto bi Juan Branco ci kanamu oto bi Guy Marius Sagna ak borom dakaar maire de Dakar bu nangu woon dugg ci biir oto boobu ñoom ñu dem non ma leer na ma ne oto boobu moom bu ko gendarmerie naree toj jour boobu Sénégal daf may lan ma Macky day wàcc ndax Sonko jour boobu bakkan dina rot ci biir oto bi mais du génn oto ndax Juan Branco suñu gendarmerie yi xalaatuñu sax ay di ko xalaatuñ ko ñooñu ay avocat international lañ yeneen niveau mënulul dara ñoom maître Clédor ay avocat lañ de mais kii dafa engagé wu sur une révolution di défendre que ay jinne ay révolutionnaire rek lay défendre problème da da ngay am Afrique mu ñëw te dalay woo pour ñëw te di ngeen gis yeneen avocat yi ñëw pourtant ñoom ñëpp dañoo toogaat étudier Sonko le 29 man xam nga lan moo tax ma compter ci le 29 pas le 30 le 30 ba fin temps gars yi mën nañ leen jooy ne leen waa léegi procès amul wala procès bi dañ koy reporter moo tax ma may xool gis nga silence quasi bi ngeen def nii boobooy affaire bi. mais xeex mi man nuñ ko programmé man dafa xaw a métti sama bopp bi tuuti waaw 29 33 non. tey ak li Macky investir yëpp wut ko ci arme yëpp. mu ne da koy défilé tey pour le 4 avril te ngeen foog tey boo leen commencé woon xeex 29 30 31 1 2 3 ngeen foog ne ki dina tal défilé wala armée dinañ tal défilé xam nga bu ñu leen naan xeex bloqué économie man fi may gisee xeex ak fi ngeen ko bëgg a teg moo tax léegi dama naan teg ñoo xamal la ah booy duñu ay xeexkat ay ragal lañ baay militaire yi génne xeex xeex bi. pourtant man xam naa ne booy dem ci jeel bi pour vous dire de booy yu bëri ay neutre lañ ndeke ñu génn kaso ñoo la koy wax booy yu bëri ay neutre lañ ndekete ñun jàpp ñu bëri ay sympathisant Facebook lañ de toog patat patat commenté mais ay neutre lañ yàlla xam na ne dañoo engage ci combat bi noonu rek pour le komba gars ñu ngi teg ay car wax leen ay car ne dañuy teg ay car région yëpp stratégie dafa diis jox gëm naa leen benn biir oto Sonko deuxième stratégie bi moom man man man man man bu doon may teg deuxième stratégie bi li may wax laay waxaat drapeau Russie bi laay andi yore ko même sum ma koy def badge ma yore ko troisième stratégie bi nag bu Akhenaton wax allahu akbar <coughs> stratégie boobu day toj gàllaaj baaxul ci gàllaaju xërëm baaxul ci gàllaaju alxuraan stratégie bi mu wax moom te boobu boo leen ko dóoree foog naa ne trois jours d'affilée wala quatre jours cinq saf sap 4 avril amul dina am ñu jël seen responsabilité man moom xeex bi lan laay bañ ngeen ne war da ngeen di xeex deux jours da ngeen reposé waat déedéet boobu mënul nekk négatif ndax Macky du ñu mayaat temps boo leen xeexaatee reposé waat dafay def li mu defoon nay leer rek bu leen leeree ne dangeen ngeen di xeex bëggaat tëbaat deux jours xaar le trois balaa le trois il va diminuer encore le maximum coow li day gën a bëri <coughs> dañuy gën a affaiblir te loolu c'est pas normal xeex bi xam ngeen lan la nañ ko jóg xeex ko benn yoon défilé du am on passe à autre chose état de siège du am Sénégal militaire duñ ko nangu buy amee du ma deux jours militaire yi duñ ko nangu état d'urgence mën nañ ko nangu te boobaa tam di ngeen dox ba ay vingt heures mais état de siège bu leen sonn gars yi armée bu doon nangu état de siège <coughs> xam nga Clédor wax na ko benn vidéo mu ne armée boobu moment boobu mu koy wax boobu Macky mënoon na décréter état de siège parce que ci yoon lañ nekk ak ci république mais moment bii moment bii ñu toll ak li Macky Sall def nii di tëj booy tout azimut état de siège du mën am si réew mi lu mat 48 heures maa la wax militaire yi wàccee ko jël réew mi mais kan moo leen couvrir xam ngeen Mali lu ma neex si ñoom ñoom kii la ñuy xeexal système moo tax après xoola ku ñëw diriger baax na xool leen Goïta il est venu du nulle paar kenn xamul kan moo def coup d'état oui ou non le colonel Goïta il est venu kenn xamul kan moo def coup waaw parce que ñoom boobu ñoom xoola na fi ISEM bi jóge ISEMu kan IBK doomam a ngi may xaalis ci xew yi mu ngi génne ay millions naan nii jabaram di yor ay néegu xaalis di si tëdd di foo vidéo yi fuite fuite fuite ñu expliquer leen seen langue soninke bambara lan mooy stem istem bi moo leen di lekk istem baa tax risu leen istem baa tax jaadi si nekk fi ne leen jël leen drapeau Russie ñu jël drapeau Russie def ko réew mu nekk dëgg ñun nag suñu xeex daan na metti lool mais toujours rek day am freinage même 2011 xool leen gars yi dañu xeex mu saf-saf ba suba la élection samedi bi bi ñu xëyee ñëpp a waaru adduna yëpp a yuuxu ci senegal seen dëkk bi ne teg ñu xëy dimanche dem voté ji dóor Ablaye Wade te moment yi Macky si boppam <coughs> démb ak bërki démb ak xam nga benn bokk yaakaar tas na benn bokk yaakaar moom metti métti day tas parce que tam ku nekk kàndidaa nga comme ni ñoom Sonko def rek comme li Yewwi def looloo am benn ku nekk candidat la ñoom ñëpp ku nekk daal la tas nañ tas Macky maman yi xoola dafa refusé wu fële sam ci maison du partem dem toog biroom gars yi ñëw dënguru mel ni ay jaaykatu xar tabaski ren toog di ko déglu wan wan fi leen yàlla di leen yegg yomal xam fa nekk di yegg gaawam yi nii moo tax démb maa leen naan conférence de presse bi ndax seetaan ngeen ko waa APR ñoo def conférence de presse bi même bu ñu bindee booy benn bokk yaakaar déedéet APR. parce que xam nañ ne ay fenkat lañ ay lâche lañ ay naafiq lañ ay doomaraam rek a fa daje ndax ki moom parti bi mu ngi assemblée nationale génne nañ ko part bi Mimi Touré moom moo leen gën bokk ci liste bi ñoom Antoine Diome ak ñëpp bokkuñu APR kenn bokk fa Mimi Touré fa bokk ak ñoom père Aline Badara Cissé te ñoom Youssou Touré ñeneen ñëpp ay naafiq lañ dañuy fen bokkuñu fa. bi te gis ngeen xeex bi fokk ngeen déplacer ko du côté di on veut rompre avec ce système on veut couper avec système man système bi toujours moo ma sonal sincèrement parce que tam tey Macky jóge fi ñu tegaat ku nekk ci système bi non déedéet ni ñuy dundee li ñuy gën a dundee li ñuy gën a ñàkk ñiy am gën a am góor jigéen ñi implanté wu fépp kenn mën si dara c'est le système moo tax moment bii ñetti pays yi rek laay wax foo xam jàmm am na fa ñoo xam fexe nañu génnee système bi di dem vers une fédération ñun Sénégal foofu lañ leen bëgg a woo mais nekkul ay dëkk bi mu ngi liggéey ak Russie dëkk bi mu ngi liggéey ak Russie dëkk bi déedéet koo xam ne d'accord ak système occidental si yoon si xalaat bu wér Pastef patriotes yi dañu war ànd ak yow képp koo xam d'accord ak système occidental patriotes yi dañu war ànd ak yow looloo yoon tey Afrique du Sud ñu ñu fexe ba tey dugal fa tey Poutine mais calculer yéen yéen yéen tam yow Sonko mu ne moom bokkul ci système occidental léegi yéen patriotes yi buñ ne foog ñu laal système bi ngeen ne déedéet système bi nag la ñuy touché c'est le système qu'on doit toucher impérativement te man système bi xam nga ñan laa koy waxal amul président amul opposant amul syndicat képp ku bokk ci système bi bu ñuy raxas dañ lay war a raxasaale ndax mun dem ver beneen Sénégal bu bees est-ce que yaa ngeen muy suivre normal système waxu système bi mu leen andil nii pour dem beneen Sénégal bu bees foog ñu raxas système bi ci làmb ji communicateur traditionnel yi conseillers yi raxasaat culture bi sport bi sport bu leen foog baax na de sport football bi rek kay dox ana athlétisme bi fi Abdou Diouf amoon ay ñoom Amadou Diabab ak Tàkku Diouf ak Kendoy bi de ana athlétisme boobu Ablaye Wade ko rey bi mu dugg see la rey UAS yi bu njëkk élèves yi sportif yi ci biir école yi lañ daan jóge loolu yëpp système moo koy def parce que moom dafa andi beneen système bu tudd libéralisme mais même le système libéral est dans le système occidental mais Sonko luñ koy xeexee yëpp nii xam nga lan la anti système bi système bokkuma ci système bi bokkuma seen macro bokkuma seen naafeq je ne fait pas partie de vous bokkuma seen idéologie man sama bopp laa gëm li ma gëm laay def am na ku un régionaliste man je ne suis pas régionaliste je suis nationaliste man moom ça moom je m'assume je suis un nationaliste su ma sañoon tey li ñu yor senegal yëpp senegal lay des suñu diwlin bu baax bi ñuy jël di ko andi fii tubaab yi di ku dundeek yooyu yëpp bu ma sañoon tey Sénégal lay des man nationaliste la biñ ma ko laajee keneen keneen ma moytul affaire Charles Blé bu dee dal la Sénégal tàkk xaw ma ne eh je m'assume je suis un nationaliste. je suis man tey su ma sañoon tey géej géej lépp ñu dàq ñëpp dàq ñëpp génnee ñëpp ñu defaat audit national. nga xam président buy toogaat day dugg ba ci biir géej gi vérifié xam ñaata bateau de pêche ak lépp fi nekk loolooy nationalisme man je ne suis pas à ce que dañuy exporter yow nga exporter di jaayee yow 500 500 francs sa 500 francs nekkul dara yow bu ngay jël di ko exporter fii France ñu jëndee ko ci euro nekkul dara ñun suñu économie moment bi lu muy gën a yokk France di gën a développé. lu gàmm yi di gën bëri dépense yi di gën bëri France di gën a développé ndax xaalis boobu yëpp après ça se retourne en lan euro France lañ koy andiwaat pour am garantie Mali mu ngi waaj a dem ci monnaie moo tax sànq bi may départ mu ne leen c'est le seul pays africain souverain qui a sa souveraineté parce que actuellement il son armée son armée moom c'est type c'est la première puissance africaine kenn mënatu si dara li mu yor si nucléaire ak missile ak yëpp kenn yoru ko ñun nag pour ñu am suñu souveraineté moment bi lenn kese la xeex te xeex bi waratul am dat mi préparation une révolution est instantanée encore une fois gars yi révolution leneen la ngeen foog ni di ngeen xëy programme yéen ñëpp déedéet révolution xam nga lan la comme le 23 juin xëy réunion yi bëri rapatatatatat rappeurs yi fekk leen fa jaxase quartier gi paa yi génn dem xeexi loolooy révolution mais la révolution de presse la man je ne suis pas d'accord <coughs> révolution boo xam ci conférence de presse de déedéet la révolution se passe dans la rue dans les rues la révolution se passe dans les quartiers dans les maisons dans les grandes villes dans les agglomérations fa la révolution di xew mais pas devant les caméras ou les cimards non ça c'est pas une révolution je regrette je regrette révolution bi moom ay xoola foog mu jóg jógu boo xam ne chaque jour rek dañ naan Sonko ndeysaan chaque jour lan la leen di wax est-ce que pare ngeen est-ce que pare ngeen est-ce que buñ jógee duñ delluwaat ginnaaw ñetti fan ñu wàccee Macky troisième jour bi peu de région ñoo jóg parce que la am na benn moor ñëpp xaddi Macky Sall récupéré dóoraat le 29 30 dinañ ko répété waat mais le 31 bu ñu leen bàyyee ba gendarme yi récupéré waat noppalu le premier ñu ñëwaat xeexaat ak yéen c'est le problème falaay waxee nii. gars yi xeex bi foog ñu song xoola song ko mu jeex yéen waa France xoola fii chaque 18 heures fii léegi xëy la de moment bi xëy la xëy xëy service la service ñëppay xëy liggéey. dix-huit heures ñëpp daje xeexaax policiers yi ba vingt te diwaat xëyaat liggéey ñëwaat dajawaat mu may France chaque jour la manifestation chaque jour c'est quotidien Sénégal kan moo ko fa sañ temps loo wax ñu saaga tubaab yi tubaab yi ah, tubaab yi ah. waa léegi ñu nag ñoom ña kan moo ëpp fit ñoom ñi amee seen révolution seen révolution France bi révolution la defaree cinquième république am de révolution moo tax tey ñu naan De Gaulle s'il n'était pas révolutionnaire tey du ko def parce que De dafa génne benn système dugal cinquième république France ah lan moo tax ñu ne c'est la cinquième république am na première république lan moo ko changé révolution deuxième <laughs> révolution France fii fii dëkk révolutionnaire la fii dem dem leen lire ci archive yi xool fii dëkku rebelle la ñoom ay révolutionnaire lañ boo leen teg boo yenee lu ñu antanul déedéet ñu yàbbi ko moo fi mos a xew fii kenn du leen yen lu ñu antanul pourtant ñoom dañ ñuy yen ñun lu ñu antanul dañ ñuy yen loo xam ne antanuñ ko ñu ne mukk naan sàllaaw yàlla baax na moo boobu ñu ñu teel a jàngal bi ñu juddoo moo ñu gaañ yàlla màgg nag yàlla baax na bu moo boobu xoola ma moo boobu yàlla màgg na astafurlaa Sénégal yàlla nga ne màgg na wala yàlla baax na dina mos a ñëw kañ lay ñëw doo jóg dem sabab a sabab doo jóg sabab lu ji ñu naan ma yàlla baax nag yàlla màgg nag yàlla góos la jaar man gëwma loolu faal <laughs> ay yàlla baax nag luñ la wax nga tayal ko def ne incha allah suba dinaa ko xooli non déedéet eh. saa yi da ngay ñëw suba waaw da ngay ñëw point boo dee xam ne dee nga yàlla fa la tolloog nit ñi yàlla il est dans concret yàlla nekkul dans le figurant yi non non non Dieu dans le concret très concret yaay jóg jëf mu jàppale la pour tëj sama gars yi cotisation yi si jiji ndax gars yi liñ ciy def cotisation yi si jiji yenn secteur u Canada yi si per da baax parce que gars yi liñ ciy def gars yi liñ ciy def nice cotisation yi na daw si gars yi waaw ci ñoom jiji ñale per da baax per da baax si Ziguinchor chaque jour dafa naan booy bul dugg si loolu bul wax loolu bul wax loolu mais il dépense énormément te man newoon nañ ma ay borom conteneur lañ ndeke la goon def il dépense énormément à Ziguinchor bi Bignona énormément laa leen wax Père ba il dépense énormément bu business sam moom xoola business am yëpp allo àllo yónneetul conteneur mat na deux ans ndax lan xeex bi moo tax gars yi diaspora bi lu ñu mën ñu ngi koy def barki sëñ Bamba lu ñu mën ñu ngi koy def gars yaa ngi ñafe dëgg xëy na na cotisation yi da ngay gis ñi waaw diaspora bi day tar xeexkat yi doo leen gis ñeneen ñi dañuy sori mais xeex bi xaalis moo koy def ndax idée Akhenaton bi moom oh yéen yaa ngi naan ay cocktail molotov déedéet cocktail molotov yéen tam boo leen ko yoree <laughs> buñ leen jàppee du baax mais bu Akhenaton yor mbuus yu oyof oh non non non boobu du ma leen nëbb de policiers yi boo leen xeexeex ñoom boobu ñaari fan ñett ma ñàkk sama nday carte gi carte gi leer nañ ñoom seen bopp ne Macky Sall demal encaissé ko te su boobaa dëkk bi kuñ ci sangoon gàllaaj ne la songal ñi dañuy daw sa gàllaaj day toj saw rek dafa garaaw ci gàllaaj saw kese dafa garaaw ci gàllaaj da koy toj tax beneen bi kon gars yi eh, boobu nag moom du leen nëbb de eh sa boo buggee mu set doo séexlu man stratégie boobu rek laa andi tey sa douche boo buggee mu set doo siixlu kër ku salte boo dem da ngay fekk mbalit ba taaje ndax lan dafa siixlu kër ku siixlu koo dem da ngay fekk mu salte du moins kër ku siixlu naan dama siixlu lii day salte loolooy salte ku siixlu rek da nga salte ndax ku siixlu doo raxasu ba set mais boo doon raxasu ba set gëm sa bopp xeex bi da koy xeex ak moom noonu ma ñàkk sama ndey man damaa wut stratégie ba sonn joxe ay cocktail molotov joxe naa ba sonn mu ne déedéet mais tey dama déglu bu Akhenaton bi mu ne bii mooy wax bii doy na bii moom doy na xëy xëy rek di leen ko balancer xam nga man nag luy sama doole ci affaire xeex bi nii ah du ma jéem a xëcc ne non non non non non Russie Russie Russie Russie Russie déedéet joxe naa idée Russie gis naa ne patriote yi nee nañ ma non non non non grand non non grand Sonko waxul Sonko ne waaw Sonko waxul loolu. mais tey bi ñu ma yónnee idée ak Akhenaton bi ma déglu ko man sama bopp dama xam fi ma toog ma ne lii mosul ñëw sama xel ça mais m'est jamais traversé l'esprit bii bu ma traversé woon l'esprit samay temps kon man waaye kon policier Dakar bi heure faat nañ ma mais gars boobu du ma leen nëbb de bu ko 500 jeunes kese appliqué 500 jeunes kese ngeen gis résultat 500 jeunes kese policier bu ñibbi sa kër say doom di la daw seexlu la mu yéen <laughs> gars yi garaaw ci xeex wante jërëjëf yeneen stratégie gars yi su suuf lañ koy joxee fii moom sama simart yeeg suñu simart yëpp c'est bon man temps yi li may daj man maa ko xam xam nga rek man je ne me lamente pas mais je suis de très sales draps mais on gère incha allah su suis dans de très très très sales draps très sales draps même catastrophique booy Europe day jékki-jékki rek changé ngeen baal ma balaa tëj am na kenn ku ma commentaire ne mu russe bi mu ne mu Russie dañuy financé ay man xam nga Sénégal lan moo fa neex léegi xoola gars yi dañoo muuronte seen biir dañuy muuruwante comprendre nga ku nekk di lijjanti nooy coppitee sa morom ba ku wax si dara rek dañu yaakaar ni dañ la jox dara weccit man ngeen foog ne bu ñu ma joxoon weccit tey dinaa toog France bii di xaar bu ñu ma joxoon weccit pour ma jox si Russie billahi ma ñibbi Mali barki Serigne Fall du fi def weer billahi wallahi tallahi li ma wax si Russie su ma si xawoon am tuuti ma ñibbi Mali parce que xam naa ne su ma wàccee Sénégal Macky Sall mooy loolu sama rasta yi lay njëkk wat senegal moom xam nga balaa ñu laa tëj rasta yi lañ naan kucc kucc ba pare toj sa lu bon te si mbeeku taatu neen bi foofu ñëpp a fa jaar man nag ñëpp a ci yam mos naa fa jaar kuy dugg rëba téere yeeg yëpp la ñuy dagg def la fut ak neen loolu moom ñam naa ko ba noppi kon loolu garaawul <coughs> fa laay waxee yéen nag mais xeex bi dafa metti de dafay metti si ñun ñëpp mais ñetti parti politique yi nag réfléchir leen ci pouvoir du système opposition du système ak opposition hors système muy Ousmane Sonko donc il est seul ñetti parti yooyu kese am Sénégal troisième république bu ñoom am Amsatou Sow Sidibé doon wooteeg ñoom Pape Djibril Fall ñoom ñëpp déedéet c'est pas eux c'est pas eux j'ai trop réfléchi sur l'affaire c'est pas eux parce que kële rek a ñëw génne carrément cadre sem Sonko mais ñoom ñëpp am na lu ñu sekk ak sem parce que ñoom ñëpp tey bu ñu koy FMI si ñoom ñëpp am na lu ñu sekk ak sem waaw seul moo nekk hors sem kon man xeex bi falaa ko teg ma ci biir système ak anti système bës boo leen réussir loolu def ko seen bopp rek bés boo leen defee seen bopp ni Sonko li muy wax yëpp c'est l'antisystème bés tant que defu leen gis nga projet bi ñu bëri ñu ngi wax projet bi projet bi projet bi mais man léegi pour yombal ko bañ di ko liir di ko toj je préfère ne leen c'est l'antisystème le projet c'est l'antisystème maanaam lépp lu système nangu projet bi nangu ko kon c'est simple léegi foog ma leen expliquer ci projet bi par l'antisystème par page par page ma jël lan mooy antisystème xeex bi nag beneen système bi moom mooy beneen forme bi saa wax je suis partant à cent pour cent je partant à cent pour cent Akhenaton moo ko wax boo leen demee TikTok di ngeen ko gis je suis partant à cent pour cent formule boobu c'est ordinaire parce que xam naa ne policier wala gendarme bu ko ñam ñaari yoon moom saa waay barki sëñ Tuubaa di nga wax lu leer yaa jëf les patriotes tey Mali moo doon objectif bi pas lii yëpp <laughs> Mali moo doon objectif bi